donc ay sensibilisation la yoo xamante ko par rapport ak li nga xamante maanaam mooy le Covid bi nga xamante deuxième vague au Sénégal donc ñu ñu bëgg sensibilisation par rapport au respect des gestes barrières au niveau de la commune de Malika. Le projet ni voix leadership des femmes au Sénégal qui est mise en œuvre par le CECI donc centre d'études de coopération internationale le CECI donc nous avons ñu par rapport ak fonds euh, yi nga xamante moom la ñuy déroulé donc au niveau de Malika aussi am na yeneen partenaires yoo xamante vraiment on les a appel donc euh, muy monsieur le maire donc de la commune de Malika moom aussi donc euh, partenaire de si projet bi donc il y a aussi les ICP comme docteur Thiam Salut Thiam ICP Malika il y a parti aussi une la Sonatel madame Diouf donc sommes aussi un partenaires pour ce projet là donc UCG aussi nous nous nous contacter aussi ay partenaires waa promotion. donc nous sommes des partenaires qui yoo vraiment euh, projet Nous quoi. Euh, nous planifier pour trois mois parce que le projet bi nous ko pour trois mois donc janvier 2021, février et mars donc euh, c'est les pour trois mois la si biir trois mois yooyu nag def nañ am nañ ay orientation yoo xamante nii moom lañ war a njëkk a def par rapport ak volontaires yi def déroulé activités yi am na rencontre avec les partenaires maanaam les autorités locales et sanitaires am na aussi euh, activité bu ñu war a def euh, si mooy ay visite à domicile ak visite au lieu de travail mooy VAD ak ay VALT am na aussi ay caravane yoo xamante war nañ ko mën a dérouler donc il y a un point fixe yoo xamante ni si grand artère bu Malika yi fi nga une affluence bu bëri manam dañ fay teg ay relais ñu teg ay lavoir donc di sensibiliser ak teg ay masque et ay gel donc y aura le projet au dernier moment c'est si si clôture bi ñu def réunion de restitution hmm. donc on lañ koy une quoi réunion de restitution hmm donc ça va nous permettre de mettre les points forts les points faibles de faire des recommandations donc euh, j'ai bi toujours au niveau de Malika parce que bo le premier vague donc il y avait les acteurs communautaires qui ñoo été en train parce se du Malika Donc aussi on avait fait beaucoup d'efforts pour vraiment les cas positifs au niveau de Malika donc que nous attente c'est par rapport à la population nous ñu déglu volontaires yi déglu conseil ñu leen di jox su ko aussi maanaam euh, xeex boobu maanaam ñu koy dégg ay yërmeem bañ a au niveau de Malika fexe Covid 19 boobu vraiment du am ay victimes au niveau de Malika du am ay cas positifs au niveau de Malika donc loolu mooy objectif parce que nous, suñuy suñuy population lañ suñuy waajur lañ suñuy doom lañ suñuy jarbaat lañ kon aussi on on peut pas baisser les bras euh, accompagnement ñi xaar surtout c'est c'est bépp bonne volonté bu nekk au niveau de Malika parce que ba légui gis ngeen né les gels du doy les masques du doy donc loolu képp ko xamanté bonne volonté nga nekk biir Malika hein donc loñ ci apporter manam ñun vraiment dinañ ko jël dinañ ñu remercier donc il y a aussi la presse donc ñom aussi ñu ngi leen di xaar kenn ko xamanté ni vraiment war nga mën def couverture donc ñoom monsieur Kane aussi ñu ngi leen di remercier di leen di di rafetlu accompagnement bi ñuy defal donc loolu aussi ñu ngi koy xaar pour les bonnes volontés les fils de Malika. waaw li may dolli waar c'est surtout les CDS les comités de développement sanitaire parce que boo waxee wàllu waa waa wàllu waa wàllu wàllu santé rek les comités de développement sanitaire yooyu mooy ci poste santé yi ñoom am nañ loo xamante war nañ ko si apporter ñooñu vraiment bëgg nañ maanaam seen seen seen seen liggéey fës si donc loolu daal vraiment nekk na loo xamante moom la ñuy xaar si ñoom donc euh, di di remercier volontaires yi nga xamante aussi ñoom euh, jël nañu seen temps consacré pour la pour la santé de la population de Malika. Hmm. donc bàyyiwuñu kenn daal vraiment.